Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Salam Vision. di gërëm ñëpp di gërëm ko képp koo xam yaa ñuy suivre sur le plan national et international xam ngeen ni actualité oblige euh, spéciale édition fii ci Salam Vision lépp ñu waxtaanee mooy la situation politique au Sénégal l'affaire Ousmane Sonko xam ngeen nii euh, tegg pour le moment euh, am na il a été libéré par la justice. C'est une liberté provisoire, on peut dire d'emblée. Euh, cette situation continue de susciter beaucoup d'émotions et de suspicions sur le plan national. Euh, usman Sonko kan mooy Ousmane Sonko d'abord ginnaaw buñ ko tuumalee dafa doon sàkku benn xale bu ñuy wax aji Sarr moo indi woon coow yëpp si biir réew mi euh, suba teel lañ ko doon déglu pratiquement après finalement il a été libéré mais sous surveillance judiciaire euh, Ousmane Sonko nag euh, euh, jamono ji nag mi ngi këram ay mbooloo mu takku ses militants ay andi jamam ses collaborateurs ñëpp fax nañu jubal kër Ousmane Sonko tey nekk na ce qu'on appelle une décrispation politique moom la ñëpp doon ñaan ginnaaw kilifa diine yi bu ñu si defee ay jéego yi am solo xam ngeen ni yaa Alioune Tine et toutes et toutes ces parties qui se sont réunies dem seeti kilifa diine yi le khalife général des Mourides euh, des Ndiassane des Layènes partout euh, les chefs religieux ont dit pour la paix et la stabilité au Sénégal yaakaar nañ loolu mooy Sénégal te réewum jàmm la boo leen xoolee euh, au temps d'Ahmadou Bamba le fondateur du mouridisme moom ay jamonoom il avait pourtant pardonné les occidentaux jamono yi Sëñ mais njiitu réew mi fi nekk war na aussi di jégale woo askanam def un discours d'apaisement un discours euh, d'union de cohésion et de stabilité loolu mooy réew mais du fitna gis nga li temps yi fan yi passé yëpp diggante euh, àllarba alxames ba àjjuma yaay presque euh, six morts loolu Sénégal musul xam genre fitna yi ba si tey rek am na benn xale bu ñu boom fële ci Parcelles Assainies ñi naan policier la ñi naan kenn xamul kan la mais enquête baa ngi wéy actuellement euh, fële ca euh, police. Euh, commissariat bu Parcelles des Assainies askan bu takku ay ndaw yu quinze 15 ans ba 20 ans ba 30 ans ñoom dañu bëggoon a song ce commissariat de police wane seen na xam xam xale bi nga xam dañ ko faat fële ci Parcelles Assainies gis ngeen ni alalu jàmbur yi ñu fii toj Auchan yi oto jàmbur yi. loolu euh, métti na askanu suñu gaal ma ne euh, ñëpp a ngi koy ñawlu les organisations des droits de l'homme la société civile les forums civils les ONG les partenaires ñëpp ñi ngi ñawlu fitna am Sénégal euh, depuis àllarba ba léegi ma ne président Sall war na wax ak askanam loolu mooy président mais keroog gis ngeen ni le ministre de l'intérieur ki yore karangeer yi il a fait un discours boo xam ni discours boo xam ni ñu bari ànduñu si dafa dem ba il a euh, fait un discours di qualifier euh, certains attaques terroristes de de, de vandalisme de criminalité loolu du discours njiit mu rafet boo ñu la dénkee karange dëkk y a une façon de communiquer y a une façon de sensibiliser et d'alerter l'opinion nationale mais keroog gis ngeen discours am de discours bu euh, bu sale moo tax Sénégal yi bari ñu koy ñawlu yu mel ni war nañ koy xoolaat bala ngay communiquer avec ton peuple c'est très important mais mooy gën euh, un tel ministère un tel comportement un tel ministre intérieur qui s'est si comporté loolu euh, teewu ko fenn maintenant askanu sénégal gaal Sénégal euh, négocia négociation yi ñu ngi partout à travers les chefs religieux loolu mooy suñu loolu mooy Sénégal dëkku jàmm dëkku paix loolu aussi daf ñuy permettre ñu am stabilité politique sur le plan social stabilité sur le plan économique sur le plan de la santé gis ngeen ni Covid bii nga xam ne actuellement mi ngi lor dëkk bi lor adduna bi yëpp euh, talatuñ ko mais lu ñu tal actuellement euh, une situation politique délétère euh, dans ce pays au Sénégal di waat Ousmane Sonko rek moom nag daal ànd ak woo tous ses partisans ñi nga ànd ak ñi xam ñu ànd ak Pastef que ça soit l'opposition ñi nga xam ne ñi waaj a ñaxtu deme talaata àllarba ba alxames mouvement pour la défense de la démocratie benn kuréel bu ñu samp dañu fas yéene dox doxu ñaxtu euh, talaata àllarba alxames partout à la place de l'Obélisque et à l'ensemble du territoire national euh, ne non à la dictature non à l'aristocratisme et non à la violation des droits de l'homme les Sénégalais dañu bëgg un état de droit juste équitable et objectif loolu mooy suñu jàngatu tey bii euh, jëmale ko à tous les Sénégalais et aussi de la diaspora nañu aussi ànd ak dal bañ a euh, yàq ay alal jàmbur sur euh, bitim réew euh, gis nañu keroog l'ambassade du Sénégal ay été siégée par des Sénégalais loolu war nañ ko mën a tax mais bu ñuy ñaxtu nañ ñaxtu pacifiquement bañ a toj alalu jàmbur muy bitim réew muy Sénégal loolu mooy démocratie loolu mooy bonne gouvernance di war le président Sall mu wax ak askanam loolu mooy président dañ ko fi teg kenn ma fi teg mooy Sénégal yi Euh, li gën a rafet rek mu waxtaan askanam dans la paix et dans la convivialité loolu mooy njiit et aussi après tous les membres du gouvernement euh, surtout la la cellule la communication euh, de la présidence de la République euh, l'entourage du président ñu mën a communiquer avec les Sénégalais dans une ambiance euh, objective euh, dans la solidarité et la fraternité ce qui mooy Sénégal mais fitna bi ñu gis ne actuellement depuis àllarba buñ ko teel a freiné dafay gën di jéggi dayoo. on a vu xale bi de yëmbal métti na ñëpp koo xam ne doon liggéey nekk un mécanicien buntu atelier lañ ko faat loolu métti na ay waajuram mooy le le jeune Baye Cheikh Diop un gosse qui est qui est né en 2004. on a vu aussi à euh, à Bignona euh, xale bi ñu boom c'est un étudiant de première année mooy Cheikh Makhtar euh, Cheikh Ibrahima Koli ay waajuru ñuy jooy ba léegi. ñu ngi laaj une enquête ouverte xam ba xam lan moo tax ñu faat doom te kooku bokkoon si benn manifestation gis ngeen euh, d'après euh, ses parents il tout juste boo xam ni innocent lool taxawul sax euh, di participer di manifester wu mais ndawal yàlla ñëw na di woo tous les sénégalais di woo surtout nos forces de la police la gendarmerie l'armée aussi d'être tranquille d'avoir une certaine sérénité républicaine Euh, même bu armée bi wàccee pour assurer la sécurité dañu war a ànd ak dal nous ne sommes pas en guerre ni en rébellion nous sommes un pays indépendant un pays souverain moo tax ici à Salam Vision nous nous continuons de sensibiliser les Sénégalais davantage pour garder ce qu'on appelle euh, l'équité et la convivialité di wax aussi les confrères journalistes xam nga ni l'ordre national des avocats du Sénégal avant tout dañu génne benn bataaxal ñu ngi menacé euh, de mort certains avocats et certains magistrats loolu ñu ngi koy ñawlu nañu bàyyi justice bi def seen liggéey mais aussi que cette justice soit une justice euh, souveraine une justice euh, objective loolu bu ñu ko defee Sénégal du am benn gàllankoor mais justice boo xam ne day loo ànd ak euh, l'État ça c'est pas une justice euh, nous appelons tous les magistrats et tous les avocats de plaider dans euh, une atmosphère euh, honnête dans une atmosphère très très très sincère loolu bu ñu ko defee rek Sénégal du benn gàllankoor mais partout les Sénégalais critiquent seen justice ñun ñoom gisuñu seen bopp seen justice xanaa di waat nos magistrats nos avocats de faire un travail euh, concret euh, sur le plan national et je pense que le Sénégal euh, ne sombrera jamais euh, dans le chaos di continuer aussi di sensibiliser Euh, ndaw yi xale yi waxtaan ak parents yi ñu mën a waxtaanee seen i doom bàyyi xale yi euh, ñuy seetaan ñuy taxawaalu si mbedd yi di manifester wu mais imaginez-vous des gosses de 15 ans de 17 ans jusqu'à 25 ans ñoom rek dañuy gis sur le front en train de de nous disons de lutter avec les policiers les gendarmes et d'autres force de l'ordre loolu parents yi war nañu wax ak seen i doom ay xale yi ndaw lañu euh, où est cette opposition Euh, cette opposition aujourd'hui ñoom kenn gisatuñu leen euh, nous condamnons aussi certaines manipulations nañu bàyyi loolu loolu du Sénégal Sénégal euh, bu ñu xoolee en arrière quarante ans cinquante ans a été toujours un pays de teranga un pays de dialogue et un pays d'entente et de solidarité jàngat bi nag dama ko jëmale avec nos confrères surtout les journalistes les médias les médias qui travaillent au service du peuple que ce soit les médias privés, les médias d'État, le site Internet, encore une fois de plus, que nous sommes un pays de liberté d'expression. Euh, à certains journalistes qui divulguent certaines informations diffamatoires, euh, dans un état de droit, comment euh, inculquer, nous disons, toutes ces prérogatives à l'égard des Sénégalais et des Sénégalaises maniques euh, les médias doivent jouer un rôle déterminant, euh, clé et objectif euh, pour mieux sortir notre pays du gouffre et, nous disons, euh, de l'incertitude. Partout, c'est euh, le désespoir, une jeunesse désespérée, euh, il y a plus d'emploi, les sociétés sont fermées. Depuis à la rebelle, on a perdu des milliards. Lolo, c'est une correcte, di woowaat euh, les Sénégalais nañu bañ a toj alalu jàmbur yi gis ngeen li yàqu si euh, ce problème des Auchan qu'on parle euh, y a les les les Total les stations service qui ont été brûlées partout loolu c'est des pertes loolu daf ñu arrangé wul ñoom ay sénégalais rek ñoo fay liggéey di daan seen doole station yi ñu toj ah ñoom d'après un un spécialiste sénégalais qui disait devant les médias lii France moomu ko. ñun suñu xaalis moo si dem ay sénégalais ñoo si liggéey mag ndaw lañu bàyyi yàq yi loolu bu ñu ko defee loolu dafay indi gàllankoor euh, sur le plan économique et je le dis et je ne cesse de le dire les médias encore une fois de plus notre rôle c'est d'informer nous le faisons ici dans cette émission et ici Vision nous ne sommes pas là pour jeter des, des, des à qui que ce soit notre rôle c'est d'aller auprès des Sénégalais de les, euh, de les, appeler, de les appeler à apaiser et à attiser la tension loolu mooy réew mais di euh, du yenn médias yoo xam ne fi indi fitna di fi indi ay gàllankoor ànduñu si tey ànduñu si yow nag tey moo doon jàngat tey bi jëmale ko si cette euh, euh, manifestation d'aujourd'hui ak yi am fan yëpp si réew mi ñëpp a ngi koy ñaawlu di remercier aussi les chefs religieux Euh, ñu ngi si def ay jéego yu am solo partout les boucs émissaires se sont rendus auprès du khalife général des Mourides euh, des Tidiane euh, des Niassène des Ndiassane rek pour ñu wax seen taalibe yi ñu ànd ak dal ànd ak yar ak tegin gis ngeen ni gendarme bi ñàkk loxoom takk na bi ñàkk loxoom loolu ñëpp a ngi koy ñaawlu lii mosuñu gis Sénégal y a combien d'années askanu Sénégal tey leen moom suñu jàngat tey bi di encore les manifestants. ñi xam nag ñu ngi koy waajal talaata àllarba alxames la ñu manifester pacifiquement bañ toj alalu jàmbur yi bañ fi indi yenn fitna loolu mooy Sénégal askanu Sénégal jërë ngeen jëf di gërëm yëpp encore une fois de plus p et stabilité Sénégal moo doon suñu jàngatu tey bi leen gërëm leen sant beneen yoon incha allah